merci au nom des populations. Parce que nous, ça fait une dizaine d'années, quinzaine d'années qu'on a cherché à, faire déguerpir, à nettoyer, on n'a pas pu. Mon école, bien à Djamé, oui, les gens qui wooyee école Mali bu de ñëwee ñu wax ma daf mais on ne pouvait pas la population est jooytu moi j'ai fait la démarche hier mais instruction yi nga joxe avant que ñu ñëwee démb am na ñoo déjà dem nañu pour dire que rek autorité dafa am solo votre autorité s'est fait sentir depuis avant-hier les gens ont commencé à dégager aujourd'hui on est vraiment content. Maintenant, notre seul problème, c'est le suivi. Vraiment, les populations sont soulagées. Et si on peut assurer le suivi, mhm. et suivi, nous, on peut venir aujourd'hui, mhm. faire, faire notre devoir citoyen, mais le suivi, c'est vraiment la force de la loi. moi j'ai vu à mes gars que notre compagnie mhm. monsieur le maire, je suis sûr que euh, le ministre va l'appuyer et puis euh, il le suivi et vraiment gis initiative yi sur la salubrité et l'hygiène publique moi je peux même dire que vous êtes le vice-ministre de l'hygiène publique et de la salubrité puisque je vois partout dans le centre-ville autour du port que vous avez vous portez à cœur euh, ce, projet du président de la République politique n'a que ça c'est-à-dire il faut transformer ses frustrations personnelles en projet collectif li wax léegi fi nga dan jangé mu doon école Derklé nga xey ñu naan ko école Mbalit yow bo sañé mu dellu école Derklé mais baña a école Mbalit. donc lolu nonu la ngeen def ngeen def ko nak ni mu gëna a parce que commune ni association yi bonne volonté yi ànd ak état bi ñoo mëna régler problème yi de façon durable sinon dañuy ñëw bale dem rek après mu jeex. dans un an ñu ñëwaat ku war clean up day ku nekk def dem donc nous nañ ci léegi ak monsieur le maire monsieur le sous-préfet tamit dañuy mettre à votre disposition déjà 50 50 ASP ay policiers gis ngeen leen ak tamit euh, ay écovigiles ci ministère mais bu ñu campagne de nettoyage, bi ni ma ko waxee léegi euh, il faut que nous dégo pour monter un modèle parce que tamit commerçant yi nous leen qu'ils seen wërsëg donc est-ce que marché bi dañ en hauteur monsieur le maire nous ngi de façon à avoir plus d'espace gis nañ un espace qui le espace logistique là, monsieur le euh, DG xam nga lima la wax ay camions yo xamné war nañ ñëw déporter projet yu ñu andi. mais dañ dem ba ñëpp génn marché bi japp né wërsëg bi ci biti la nek dét mais ñun ñi nga xamné ñoy autorité l'autorité ça s'exerce exerce dañ leen naan fi ngeen wara a yem fii ngeen war yem camions yi fi la wara war donc lool nak vigilance population yi baax na ci mais monsieur le maire dinañ ko andil tamit appui bi ci war moy appui wu état fexé ba sous préfet andi euh, nit yi ci war euh, dinañ fi andi sapeur pompier suba ñu nettoyer lépp au karcher ni UCG ñëwee tamit tonni mbalit bi mais li gëna am solo moy suivi bobu amna dispositif bo xamné daf fi dess ak ay policiers bu ko défé ñu respecter les limites du marché parce que un marché n'a pas vocation à s'imbriquer aux habitations donc loolu loolu nañ ko respecter fep suma joggé fi ci yenen marché lañuy ñuy dem le mois prochain bañ def ko ci xélu nit ñi mais tamit mu and ak sensibilisation ak waxtaan parce que bari na lu nit def du caagin ne dafa bëgg yaax mais dafa xamul dafa japp rek ne wërsegum lay wut bu jaayé ci mbedd mi wërsegum day ñëw mais xamul ne wërsëg woowu loo ci def it yaa ngi yàq leneen mooy la ma wax fële ci géej gi waa daf ma ne il faut qu'on qu'on qu'on qu'on mette en place des politiques sur la paix et sur la salubrité ma ne mais la salubrité c'est la paix parce que la paix avec son environnement propre boo demee tey géej gi loo ko sànni du la wax dara waaye guddi mu rejeté waat la donc il a la mer aussi à sa manière de réagir donc loolu laa amoon lu may wax maa leen di gërëm leen sant bu baax a ci démarche bi on est prêt à venir vous accompagner que ce soit les communes ou les associations vraiment je vous remercie. de Merci. vraiment merci colonel merci hein.